waaw seddi naa ni ko gisee nii rek sunu mbokku traiteurs yi nga xam ne chaque année nii rek la ñuy defal boo ganni di kontaan kenn du xiif kenn du mar kenn du rafle gis nga kii ay xeetu fruit la yoo xam dañ ko jaxase rek suppu kànja fruit dafa ko ba mu baax suppu kànja fruit ngi ñoom gâteau ngi nii ah gis nga li yëpp ci xeetu gâteau la li yëpp tam ci ay xeetu confiture la ñoom chocolat ah liggéey Serigne Touba rek moo wóor ah li yëpp sëñ Bamba moom la gis nga jus nii ah vert jaune rouge drapeau du Sénégal ku baax yow lay sotti nii. nga ni jus de bissap lay sotti. jus de bissap mais euh, jus bi ci suuf ban la. boobu buy la. buy ak bissap nga boole. waaw cocktail buy ak bissap. Eh, waaw yaa dégg waay waaw mon frère. waaw yéen moom mach mais kër gi moom kër moom yi moom daal ni ngeen ko doxalee chaque année. waaw mu ngi nii de chaque année nii lañ koy doxalee moom i Kébé yàlla na fi yàgg lool te wér suñu supérieur boole ami soxna. waaw supérieur moom daa jàpp moo tax. ma ne xaaral ma ñëw nii rek màggal Touba kër soxna Muminatu Kebe mu Serigne Saliou ah waaw mu ngi nii de ah sapar kaay sapar nga ni nga yii moom bu doon yow noo ci def kii nag xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ko ci TikTok yi xam ngeen ko ci Facebook bi Abdou Salam dama naan dukk dukk xel la yomb yomb xel la waaye mese leen jaaxal boo ne mes da nga noppal sa bopp noppal ñu lay dàq noppal say bokk ngontub avion wuute naa ngontub kàkk targu faxaj gars yi kàkk targu fa ji leen gën a gaaw soxna moom i kebe du seen morom bari tànk cim réew fa gën a ko gën fu mu wàcc ñu dalal ko kuy weranteb jël nag dan la daanu ci saako fëriñ bu daj da ngay jóg weex tàll saako fëriñ la tër gars yi ci soxna moom salaam xam nga ni boo fi ñëwee xam ne teraanga yi bari na lépp a doy lii xoolal lii xoolal ji teraanga ah? maanaam pinte panta ngay def ndax doo xam boo ci war a jël loolu ñu naan pinte panta doo xam boo war a naan fi ne te soona moom i kabe li ma jaaxal baabooy dafa ñëw ba fii di di la man loolu nag rus naa nag rus naa baabooy du ñëw ba Touba duma ndax sama gan la loolu loolu la mais bu yi jàllee dana xànni maag moom la baabooy doo ñëw ba Touba ma lay duma ndax sama gan nga mais bu yi jàllee ba safar amatul nga xam ne lépp dëgg la lañ ko takkal médaille fële ca ca ca corridor kenn mësul gis lu mel noonu mu ànd sama rakk ji nag bii ju siise xale yaa ngi ni teel a xëy guddee waaj waaw neex a fekk New York neex a fekk eh, eh, na naaru naaru naaru naaru waa an sama doom Waly mi ngi ci yoon bi mi ngi noonu di ñëw ak a bëgg màggal Touba waaw xam nga nag eh, sëñ Touba moom dafa def loo xam ne ku baax ku ne boo xàmmee bëgg ko <laughs> te dañ leen ci fekk tubaarkàlla noonu loo noonu noonu noonu la borom kër gi def asta bintaram joor nga xam ne dafa xool la baayam nga doon bëgg rek mu def ko yitte mooy màggal gi wootewul xew wootewul mariage wootewul céet màggal gi rek boo ñëwee ba gis li muy def nga xam ne màggal gi rek ko ñor Asti Bintaram Dior naa. dan maa laaj léegi ni ma yéen artistes yi nan ngeen nan ngeen def ak soxna moomu Kébé yi ñun artistes yi. mais ñun artistes yi nu ñu def ak soxna si mooy euh, moom ndey la jigéen la euh, kilifa la. rek loolu la def ak ñun ndax euh, xam ne ni ni mu juddoo ak ni mu jëfe mais salaam. kéwal te ba yëfam <laughs> tax ma ne ko asta bintaram joor <laughs> kéwal te ba yëfam bu jëfee rek nga xam ne faaris la te kat bu ko neexee gàmm bu ko neexee màggal ñaa xarañ loo ñaa yow duñ dem te duñ wax ak yow bu làqatu du ma la laal yow yaay suñu xarit waaye sama nijaay ngoog waaye mais ñaa ñaa yow li ngay bëri bëri programme Magal Touba moom doo ko raté. waaw Magal Touba am ma ko raté mu ndax dama fi am ay xarit am fi ay yaay am fi ay papa am fi lu ne daal biir Touba. sa diggante ak soxna moom yi soxna mooy moom suma yaay la nit ku baax la nit ku mën nitam la nit ku mën teralaate la ñaa saa yoo snabee nga envoyé ñaata nombre de vues ngay am dëggantaan nag dëggantaan rek waaw snap moom dina am maximum deux cent mille vues laay am vingt quatre cent mille vues waaw vingt quatre heures moom laay am deux cent mille vues xam nga bi lu mu gën a bëri vues di wàññeeku bu dugalee lu ndaw vues di gën a bëri maay la number one di snap loolu lu ko indi dama ma gëm nga may ma exclusivité bi maanaam nit ñi dama leen di wan li leen intéressé muy Wally Ballago Seck moo leen sap mu leen koy wan en temps réel gars yi di ma seen en temps réel mais gis nañ léegi ñeneen sax dañ lay woo waaw ñëpp may woo may couvrir lu ne en temps réel la xam nga léegi communication moo toll ci digital ndax euh, téléphone moo gën a jege télécommande président la république sax dégg naa da ngay ànd ak moom di snap waaw damay ànd ak président de la république di snap ñeneen ak ñeneen di snap mbir mi nan la la dikkee foo moom ci dugaloon rek ba mujj nekk dëgg. foo waaw foo la woon rek ak ak mon ami mon frère le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck moom laa tàmbaleel di foo di foo ba affaire mujj nekk dëgg. may fàttali ko soo ma doon tëgg ay soirée da ngay jël sa xaalis bopp te boobu yoroo xaalis dem jënd ay mouchoir di ko jox doomu aadama yi. foofu laa démarré nag ci mouchoir nag na saal mi weex gars naan manquant bi manquant ba mu ba Wally mu ñëw def ni ko doom ndey la golden boy de la man de maa am exclusivité bi tey yàlla na yàlla yokkal sa jàmm. kontaan yow it nit ku baax nga gis nañ ni ngay jàppale suñu xarit sunu frère Wally Ballago Seck ndax bu dul dara ci yow la démarré wallahi sunu doom la bu dem daal loolu yàlla dogal. sunu doom la jërëjëf. jërëjëf. waaw koy nijaay ñoo ngi kër soxna Momatou Kébé bu Serigne Saliou. waa Sénégal ñëw fekk ma fi. jóge fi sore di ma wër. ni ma foog ne man leen fi may dal ñaar fukki at juróom ba tey. bëggoon nag yan kàddu nga ci sànni ci màggal nan la ñuy màggalee fii ci kër gi màggal gi day mën naa ni màggalu Touba day genn màggal waaye ni ko soxna yu moom mi di màggale it genn màggal la dem naa fu bari waaye li ko sëñ bi jaral ak ni muy berndee ak yii nga tiim ni mu koy doxale bariwul fu mu am loolu nag li ko waral ka ko jura alaaj ñu ko kebe ba fi mu ne nii milliardaires yi jotu jotagut ko te ba mu jëfal sëñ Touba booba jëf xewewul nii bàyyi na fi loo xam ni mu meññee sëñ Moustapha Kebe mu baax mi soxla moom mi di rakkam di jigéenam doom ji jigéen nag yàgg naa niru baayam jigéen ñi réew mi moo neexee taxaw fii ni soxna moomee ci man ndax li ko nit ku baax jaral ci teraanga laa mës a gis ndaw lay dox ko koppar mu jaral la ko moom laa mës a dégg mu ni ñëw leen sama kër ma teral leen yor saagu xaalis borom këram nag sëñ Ablaye Tage mu sëriñ Saliou yàqu ci dara loolu danoo niroo ko moo tax ñu mën a ànd xanaa xamoon siñ ab Ablaye Tege bu la rombee di dox te nga xam sëñ seexum sëñ saa yu da laa ñoo bokk bàyyi Cheikh Ibra Fall dafa wax ni doomi kun gërëm ak doomi ko ko benn lanu ñu ko lu tax mu ni ki gërëm yi li mu jur doom ki mu gërëm ci la jur doom doomi xol yi sëñ saa yu mën naa ni mooy Ablaye Tege ak ñi mel ni moom ci sëñ Saaliwu ndax wala du sul bi yurusul xaal wala du sul bi yurusul maal doomi xol dafa am doomi da deret am sëriñ Cheikh amul moroom ci réew mii waaye taalibe sëñ Saaliwu mbakke bii di denc soxna Momy Kébé bokk ak moom sëñ saariwu muy sëñ Ablaye Tege bariwul moroom ci réew mi jëfam sellam kurusam alxuraanam maandoom ak doxam noppeem bariwul ku ma ko gis lii nag dafa jara jël ndax jëf ju baax day wàllee dafa am ko masa nelaw sëñ Saliou ni mënta jaale ji ku baax ni ko mën naa dem jaale jël na mun ko nooy def mun ko jënd xàbbal bu noppee màgg mun ko boo demee ñu baax ñëpp lañ ko yëg keroog la ko wax ni ko jëf ju baax di su ko boo demee na ko bokk yi gis ku ko yéene def ko amub yoon ku ko yéene te mënoo ko sa yéene lay mayub yoon màggal gi nag sëñ bi ni na ngeen ma ci sant la yàlla giléem ba ci ginaar ginaar ba ci giléem soxna moom yi li na ci saal bi saal bi ci kaw ak bi ci suuf ëpp na 400 personne te ñëpp lay tegal loxo loolu nag Ablaye gis si di ko de gis naa mu di ko def tarif alxuraan la weesu lim ci daj mat na cent million te nun ñi kenn ku nekk ñeent fukki junni la yiwee yiwee kon moo tax wi fii gërëm soxna moom yi gërëm sëñ Ablaye Tage dinaa gërëm Ablaye ji sini ko maa ngi ñaan suñu borom mu dim dolli ko dimbali doolee dimbali ñi mel ni ñoom te jaxasoo wunu waaye soxna moom yi daal su ma la nëbbuwul mooy sunu rakk di sunu ndey di sunu xarit ndax dama damaa mas a wax ne maay taawu soxna moom yi Kébé am ku ma ni soxna moom yi sa dooma ko mag bi man ko lu mu ci doon ndey day nàmpal te soxna moom yi moo nuy nàmpal su ma la waxee li ma soxna moom yi may ci ab xaalis dama la 5 million 7 million loolu nag ku la ko defal nga dis gor te mënoo koo wax jëroo koo defal ki ko def man na koo bañ a wax waaye nag kim ko defal na ko wax ndax ñi ñi mu war te defuñu ko xam ne ay yambar lañu maa wax ni deen gërëm jàmbaar yi ngir yambar yi ngërëmul jàmbaar bu yemee gërëmul yambar bu yàggee jàmbaar lay tàyyel soxna moom mi jàmbaar la maa ngi lay nuyu nag di la siyaar soppeb sëriñ Saliou Mbàkke nga gone ko tuuti nga ba nga fee ami tolof tolof wéeru ci sëñ Saliou dugg kaso ci loo xam ne képp la woon muñ ko bi nga fëlee nga am sa tur wi Euh, gone nag lam bëgg loolu lay doon yaa ngi yëngu ci saayir waaye soxol bi mën na maa giñ ci sëñ tubaa ku ko fëgg doo ci fekk kutu sëñ Saliou te kat sëñ Saliou mooy sëñ tubaa mi defalan gaa yi moo ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Bamba daan def ci mag ñi moo tax ma xam ni ku mel ni yow du gone ku mel ni soxna moomi du gone sëñ Saliou gone gu jëflanteeg moom mu jox li yëf yi mag mu jaddit la du xalifa mu jaddit ab sër la bu demee ku ko doon ñambaas la aw du rëy bu demub sër sëñ Bamba yeesal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa jafal Cheikh Ibra sëñ Saaliw yeesal yoonu murit jafal Cheikh Béthio jafal soxna Momy Kébé foo ma ko laa ñeme naa ko wax ndax man Baay Faal laa kenn rek laa ragal mooy yàlla kenn rek laa bëgg mooy sëñ Bamba Cheikh Rafal laa ko jaar maa ngi ñaan soxna Momy gudd fan maa ngi ñaan mu wér maa ngi ñaan mu dolli ko ba li mu bëgg a yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa ak taalibe yi yàlla jox ko wërsëg wu ko defee ak wér ak dund ak mat loolu laa doon daal la ko wax. c'était Salam Diallo Sénégal ici à Touba. <laughs>